boys and the Julian. Hallelujah. yaay booy yaay booy sànni ñu ñaan te ñëpp ko moom en ce <laughs> asalaamaaleykum mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am mbégte ak kontante jàkkaarloo waat ak yéen nuñ koy defee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci Grand Médine seet si fi kenn koo xamante ni sampion la ci biir sampion yi kenn du ko werante ci làmb muy Agogo Agogo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di leen nuyu di nuyu waa koñ bi ñëpp di leen baalu àq di leen baalu àq di nuyu góor jigéen mag ndaw sunu papa yeeg sunu yaay sunu mag yeeg sunu rakk yeeg sunu jarbaat yeeg ñëpp maa ngi leen di nuyu waa koñ bi ñëpp di jéggalu nag di leen baalu ak si dérangement bi ndax wax dëgg yàlla combat bi mu taxawee ba léegi chaque jour ñu ngi organiser fii ay affaires yoo xamante ne léeg-léeg mu déranger ñenn ñi xëy na mais ñu ngi leen siy jéggalu di tuub xam nga di leen wax ne sunuy doom sunu sunuy doom lan rek ñu sànni ñuy ñaan wax dëgg yàlla di nuyu waaw sunu mag ju baax ji Marème Marème ñu ngi koy nuyu bu baax wax dëgg yàlla si sunu mag ju baax la. di nuyu ñëpp nag wax dëgg yàlla di kontaan waa ci waa koñ bi ñëpp nag ñëpp ñëpp ñëpp ñu bañ a lim rek ndax bu ñu lemee du ñu matal wax dëgg yàlla sant nañ ñëpp nag di gërëm ñëpp di woo ñëpp nag ñu jàpp si combat bi mais yëpp nag ñu bàyyi xam ma sunu rakk yi ñu ñëw esaat ñu jox leen xaalis ñu jënd si biir ñu ñëw esaat incha allahu rabbi. dinañ ñëw ci combat dinañ ñëw waaw. Euh, euh, ñi nga production moo tëgg la 4 janvier diggante Agogo ak Thieli nooy waajalee combat boobu. waaw lu raw luñ doon waajee si yeneen combat wax dëgg yàlla ndax suñu premier grand combat la comme nu ma ko tàmm di waxee te fu mu ñu mën a yóbbu bari na wax dëgg yàlla te dañ ko war a gañee ndax euh, ñàkk ko gañee it wóorul si ñun ndax fi mu ñuy yóbbu ci làmb ba ñu ko ñàkkoon tamit fa la ñu jëmee ndax nit du nax boppam moo tax préparation biñ ci def moom du li ñuy wax sax ndax. wax dëgg yàlla daj nañ ci loo xamante ni mosuñu koo daj ci làmb ndax xam nañ fu ñu combat bi di yóbbu et xam nañ fi ñuy xaar xam nañ fi ñu teg wax dëgg yàlla di ko waaj nag wax dëgg yàlla gën a ànd ak samay mboq ñi nga xamante ni nii ñoom laa doon àndal di waa ji ni taxaw nii di socc ba ma dalee bari mbàppat ba léegi moo tàmm di téye sama cumbukaay euh, mu laxasaa yoon nag di taalibi Cheikh Abdou Karim te combat bi waxuma ko kenn mais si kàttanu yàlla mooy teewaat cumbukaay bi mm. waaw combat bi mooy teewaat cumbukaay bi mm. dëgg yàlla dafa nekkoon nit koo xamante ni miin na ma miin na sama cumbukaay di sama rakk mm. doon bëre mais après yàlla dogal mu la laxasaayu nekk taalibi Cheikh Abdou Karim di sama rakk ju baax wax ma ko kenn mais combat bi mooy toogaat cumbukaay ba. kon loolu wasaare lamb dong moo ko am Agogo ñaata séance ngay entraîner par jour. waaw combat bi sans dépend parce que bu ma bu mu taxawee yàgg na. deux séances rek laa ko entraîné nag. ñaata weer la taxaw combat bi. Euh, bu muy taxaw boobu saison bi ibbeegul ndax boobu màgg màggalee gunu sax. boobu ba léegi nag ñu ngi si. waaw parce que trois séances bi mënul woon nekk ndax tamit du la may lu bari coono la lay indil te doo doo am doole. moo tax ñu bàyyi loolu noonu daan nañ ko def nag ci làmb mais dañ ko mujj bàyyi parce que après xam nga xool nañ boo xool deux séances moo ñu gën a mën a jox lu ñu soxla. ba pare combat bi amoon na temps lépp lu ñu soxla munoon nañ ko si def ba nga xamante ne nii dina mën a xaj ci deux séances. deux yi boo xëyee nu muy demee. waaw commencement bi dañ doon bu saison bi avant moo ibbi sax. daan nañ lu di dem fajar géej liggéey. mun ñibbisee bu ngoon jotee ñu def musculation. léeg nag ñu changé ko léeg dañuy dem musculation suba gi ngoon ñu dem géej. waaw léegi nag bu ñu demee nag ba affaire yéeg si nag ñu changé waat programme ñu xool lu ñu liggéey si salle bi ak géej gi. yenn détails yoo xamante ne nii nag suñu yëf bopp la si wàllu préparation entrement tey boo ko waxoon tey dinañ xam ne kii lii la lii lay indi ci làmb ji. waaw. Euh, di nga dem ci école ba di contact fu ngeen a entraîné. bu baax a baax a baax a baax ñun nag amuñu école. encore une fois amuñu école damay lancé waat appel rek Moussa Sy suñu écurie ci parcelle la bokk école de lutte sàkku xam-xam Birame Ndiaye mu jox ñu Rock Énergie fu ñuy entraîner foo xamante ne nii benn rukk la boo xamante ne fa da ko da ko may Rock ñu fay entraîner te écurie yu bokk nañ ci suñu écurie écurie yu mag ci parcelle fii muy Birame Ndiaye tey dañ koy ñaan moom ci boppam mu mu loolu mu utal ñu benn rukk goo xamante ne nii xam nga foofu la ñuy entraîner waaw te xam naa ni moom du ñàkk am na ko. ngay ñaan mu dimbali ñu si la parce que amuñu fi ñuy entraîner géej la ñuy entraîner si tefes kenn moomu ko. dafa tere kenn wax dëgg yàlla moo tax léeg ñu nekk géej nag léeg ñu dem feneen léeg ñu làkk dem feneen wax dëgg yàlla toogu ñu géej kese. léeg ñu boo xoolee sax combat bi ñu ci entraîné si géej gi si contact lu waa lu jëm si contact bariwul waaw dañuy def nii rek. xam nga xam nga sa adversaire ki ngay bëre. xam naa ko bu baax yàgg naa koo xam. yàgg naa koo seetaan yàgg naa koo xam yàgg naa koo seetaan. waaw wax dëgg yàlla. yàgg naa ko xam yàgg naa koo seetaan. lan la gën a mënee xeex wala bëre. non bërikat la ndaanaan la. duma ma fi wax sax lii la mu nekk lii la mu newul su boobaa moo xam ne tamit xam naa si moom lii ak lii ak lii ak lii en tout cas daal ndaanaan la ndaanaan la. Thielly ndaanaan la. ban tànk lay jiital gauche wala droite. Céeli daal ndaanaan la du ma ne ma ko wax sax tànk bu muy jiital. waaw mais ndaanaan la daal. yaa ngi suivre ay mais moom lu mu wër ba wër ne moom tànk bu mu teg. ma teg bu sa des ndax gauche droite daal lu ma neex laay bëree. loolu moom yàlla dimbali na ma si bariwul nag sax si mbër yi ñu mën a xeex si gauche droite ñu mën a xeex si ñaari côté yëpp bëri si ñaari côté yëpp man loolu yàlla suturaal na ma ci. Mm-hmm. waaw bariwul nag si mbër yi wax dëgg yàlla waaw. Kelly loo koy dénk ci combat bi nu ko war a waajee ak lu ngeen ko war a pare ak waa Grand Médine yan jàppale lañ la defal ci combat bi. Kelly du ko dénk lenn ndax amul lu ma koy dénk ndax xam naa ne moom fii combat làmb ji dafa mit képp ku fi jël combat di ko fonk ndax xam naa ne fonk gi ma comme fonk combat bi moom it fonk na ko comme noonu kon man du ko dénk lenn du ko dénk lenn combat bi nag pare naa ko ak sama waa koñ. Mm. pare ko ak samay xarit pare ko ak samay grand. Mm. pare ko ak sama waa dëkk. waa Grand Médine di leen gën a ñaax tamit nag ñu gën a waaj lu si des bëreetu làmb ji samedi la. Hmm. di leen wax ñu gën a waajaat rek ñu gën a waajaat ndax pare woon nañ fa làmb yu métti wax dëgg yàlla te songoon nañ ko daanoon nañ ko. Hmm. di di wax nag wax dëgg yàlla ñi ngay gis nii tey ñooy sonn suñuy combat. Hmm. billahi léegi ñoo ciy sonn ay ñoom seexu yi ay ñoom usu yi nii ay puy. xam ay mbay mii ngay gis. ay ñoom kin ne waaw ak xale yi ngay gis baarale wax dëgg yàlla ay Pape Thiam boo limee tamit mun ngaa bañ a mootal ñenn ñi mun nañ ci gis seen bopp mais wax dëgg yàlla mbooloo lañ koo xamante ni munoo lim ñëpp munoo lim ñëpp mais wax dëgg yàlla ñu ngi ciy taxaw taxawaay bu am solo taxawaay bu jaar yoon di leen wax nag ñu gën cee taxaw nag ñu gën a jàpp parce que combat boo xamante ne nii dañ ci soxla mbooloo gu takku sax te mbooloo gi nag ci ñoom la affaire yaa loxo. ñoom ñoo génnee mbooloo mi ñoom ñooy am taxawaay mm. waaw. bii mooy sa ñaata combat arène. bi mooy sama quinzième combat. quinze combat. quinze waaw man bëri naa quatorze combat yoo xam ne. six yëpp spécial la. six yëpp spécial la. man fa ma bëri fa ma grand combat laa ko war a bëree. teelu ma ko bëree. ba ma koy bëri sama tur may na ma ko. Mm. ba ma koy am sama palmarès may na ma ko. daan fi ay champion ay champion it daan na fi. kon combat bi nii kenn du wax ni combat lan la ndax ahlu làmb moom yaakaar naa bu ñëpp xamul ak góoy. ñaata victoire nga am ak ñaata defet nga ci am. Guiro Sera sama daan. Mhm. Euh, Cheikh bu waalo. Mhm. Socemane 1. Mhm. Nokia. Nokia. waaw su ma juumalee ñii ma daan. li si des yàlla defal ma ci sutura. Hmm, kon kat defet nga am ci ci ci sa bi ci ci làmb ji. te yow ñu ngi fi tudd ñëpp ay champion lañ. waaw ñii nag ñoo ma daan. Hmm. bëri naa fi nag wax dëgg yàlla ay combat daan fii li si des yëpp xam nga munoo lim ñëpp tamit ndax mooy loolu noonu mais xam naa ne daal boo yëmbal daan naa ko fi. daan naa fi doomu daan naa fi doomu waalo boobu la moom laa njëkk baril spécial. daan fi doomu waalo. Hmm. daan fi Malick Ndiaye 37 fu daan fi général Malika daan fi Sosamaane 2. xam nga yooyu moom mën naa ne yi si des boo limee tamit da ngay guddal rek parce que <laughs> moo tax ma si del rek defet yi ma si am rek pour mu firnde ne eh, waaw yi si des yëpp ay victoire la. ban général Malika numéro 2. léegi man xaw ma général Malika numéro 2 général Malika mel na laa xam mi mi mi mi mi ñu joxoon. trophée bi si làmb simple bi général Malika mi ngeen xam yéen. moomu. waaw général Malika moomu waaw. mi mel mi nga xamante ni làmb simple yi moo koy toj. waaw yàlla mu war a bëreeg euh, fils de balle. waaw général Malika boobu la nag. waaw bu amee numéro 2 xaw ma ko moom kooku laa dëgg yàlla. cey làmb. de Agogo li ma jaaxal mooy palmarès mi nga am jafe na ci xale boo xamante ni toll na fii ci làmb mun a am dynamique yii di victoire ba pare sa combat di jafe wala wala wala bëree goo combat ba bii mooy sa première sortie. waaw euh, sama combat nag sama combat nag jafewul. musul jafe. ndax ba ma dalee bëri ba léegi yàlla suturaal na ma musuma année balance. fin 2013 su ma laa dugg si arène bi musuma année balance te yàlla suturaal na ma six saison mu bare deux fois. benn saison laa mos a bëree benn yoon. mooy saison daaw jéeg bi waaw saison daaw jéeg bi laa bëree benn yoon te boobu damaa bëree woon actuellement ne un mu daan ma ma am defet sama grand ne ma bul bëriwaat bul jëlaat komba mais joxoon nañ ñu komba ba combat ba taxaw. léegi damaa bëgg. waaw. mu ngi nii jàkkaarloo ak yow di la seetaan lan nga koy dénk ci komba ba ci bis bi. waaw dégg naa mu ne walla boog dégg naa nga ne yaa dàq bëre yaa ëpp doole waaye axlu làmb de xam nañ làmb xam nañ nu mu tëddee euh, nangul naa la sa ndaanaan waaye wax dëgg yàlla duma ma si teg leneen damay bàyyi ba bis ba ci kàttanu yàlla. yéen ñaar kopp doole. non en tout cas xam naa li ma liggéey man moom li mu liggéey na xawuma ko te li jëntiw ma ko sax wax dëgg yàlla xam naa li ma liggéey xam naa ni ma préparé wu xam naa nag nan laay bëree combat bi xam naa nan laa koy diriger na laa koy doxalee. ci kàttanu yàlla. yéen ñaar ku dàq xeex yaa ceeli. bon en tout cas daal pare naa combat bi mun na xeex mun na bëri yooyu yëpp ndaanaan la. ku dàq xeex yooyu noonu làmb laa jëm. non non mais munoo di jë bëri ceeli. instant bi dafa am ñoo xamante ni yàlla may na leen ci ci ci ci ci ci làmb boo waxee sax dinañ xam carrément yow mii lan moo nekk sa xel loolu am na si ñoo xamante ne ñu ngi fii yàlla may na leen loolu ci làmb moo tax côté boobu du ma ci wax dara. xam naa ne daal dinañ bëri dinañ xeex ku ne xam na ne man ak Thielly dañuy bëri dañuy xeex. xeex bi dina neex ku xam na ne man ak Thielly dañuy bëri dañuy xeex. lan nga ci gën a bëgg yow bëgg nga xeex bu sax wala bëri bu sax. Euh, bëri dóor lañ def dañoo commencé mbapat ba bàyyi commencé nekk di bëri duur kon denan bëri dinañ bëri xeex ñaar yëpp laa ciy def. ku njëkk dugg ci stade yéen ñaar tegtal bi. waaw yow wala Thielly. non loolu moom xamaguma waaye lu làmb ji laaj man bu làmb ji laajoon ma fanaani fa it dinaa fanaani ko fay njëkk ñëw ak ku dul njëkk ñëw wax dëgg yàlla kooku moom man moom sama bopp laa lijjantee euh, heure bu ma war a dem làmb rek làmb ja dinaa ko fa dem. après nag dama ko fay fekk wala damay fekk moom mu ñëwagul ak yooyu noonu mais man heure bi nga xamante moom laa war a dem làmb ja heure boobu laa dem. jërëjëf Agogo dégg ngeen loolu nga xamante ne moom la yor xanaa dañ lay may nga woote rek. Euh, woo maara yi. ñu war a jàpp ci kombaa bi ñu war a takk loxo yeeg tànk yi wala yooyu doo ko def. waaw loolu moom duma ko def. ñooñu moom jaruñoo woo te ku ne xam na ne ñooñu moom boo leen soxlaa am na fooy jaar te loolu tamit am na ñu ko yor ñooñu dinañ ko dox dinañ ko wax man moom damay woote rek. di woo wax dëgg yàlla waa Grand Médine di woo waa Grand Médine ñu génn ñëw jàpp si kombaa bi ñu woo waa Grand bu baax a baax a baax a baax. waa mbaar mi dama bëgg ñu jogaat ñu jogaat taxawaat ci combat bu baax gën cee farlu ngay woo waa Banlieue bi di woo waa ba di waa Grand ñëpp sax ñëpp billaahi di woo Youssoufa comme ni ma ko waxee woon Youssoufa ñu ngi lay ñaanaat encore une fois nga ñëw jàpp ci làmb ji nga jënd bee may ko xale yi ñu ngi la koy ñaanaat Youssoufa Niang sëriñ maa ngi lay nuyu di la bége sëriñ borom baax nga borom loo ay kenkaay boroom kenkaay yi waa ju baax a ngi noonu mosul des ginnaaw ci sama làmb ku baax la sëriñ maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi nuyu Mouhamed Ndiaye Rahma dama koy nuyu di ko ziar di ku baax taalibi sëñ Abdoul Aziz si baax waa ju baax la comme ni ma ko waxee woon rek man moom duma wax kenn. yaa ngi yàllaa ngay nuyu te gisuma yàlla. dafa sekk ak man lu baax te boobu sax làmb taxul woon liggéey ñu boole woon aada nag ku baax la aada moo ñu boole moom te wax dëgg yàlla bu ko neexoon loolu yëpp du ko ci fekk bu ko neexoon ñun jot saa ci Mouhamed waaye aada nit ku baax la du sax nekk intermédiaire dalay lay yóbbu ba ci Mouhamed Ndiaye bu ngeen di liggéey noonu la bu ngeen bu dee leneen it noonu la wax dëgg yàlla. bu ngeen liggéey noonu la bu dee leneen it noonu la kon aada jërëjëf yow laay sant di la gërëm aada yow ku baax nga di nuyu sama gaay yëpp nag di nuyu sama gaay yëpp di leen nuyu di leen wax combat bi yegsi na nañ gën a taxawaat di leen wax combat bi yegsi na nañ gën a kër Diop bu Karim Wade borom mouvement jàppal ma jàpp maa ngi lay woowaat bu baax si komba bi lay woowaat bu baax si combat bi. Babacar Diop maa ngi lay waxoon naa la ko boo jógee rek combat bi lépp dina sotti damaa bëgg nga jóg nag réagir wax dëgg yàlla Babacar jógal nga jàpp si combat bi ay ñoom Aliou Ndour Maodo juuf grand Maxet xam nga grand Médine képp bu kenn xeeb sa bopp. képp ku jot lii rek jàppal ne Ago yow lay waxal képp ku dëkk grand jot si lii rek jàppal ne Agogo woo na la si combat bi te yow lay waxal. wax dëgg yàlla koñ bi nag maa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. maa ngi sant ñëpp di gërëm suñu waa écurie maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que combat yi dañ ko jël ci façon boo xamante ne wax dëgg yàlla euh, jéggi na dayoo. ma am komba Mori am combat Désika am combat. Étoile Jolof si sama journée bi lay bëre fii la dëkk si koñ bi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla mais eh, wax dëgg waa écurie bi moom. dama leen di ñaanal jàmm ñi si amul komba yàlla may leen komba Brise quatre heures quatre heures seize heures pile si tali la koy fekk ñun ñëpp ñu daje ñu war a dem fu ñuy dem léeg ñu dem fii léeg ñu changé demaat feneen ngoon gi tey am na fu ñuy daje xama nga pour def suñuy affaire wax dëgg yàlla tey écrit am Ndiaye encore une fois di wax promoteurs yi ñu gëstuwaat nu bu baax a baax parce que ñun ñi fa nekk wax dëgg yàlla njaboot lan ñun ñi fa nekk amul kenn ku joge si écurie ñëw si écurie bi ñun ñi fa nekk fa lañ jàngee bëre faleen lañ jàngee nu ñuy takkee sër fa lañ màggee kenn jógewul feneen ñëw fa ñun ñëpp ay mag ak lan parce que dañoo xamante amul benn détail bu am suñu écurie di ñaan yàlla sutura détail bañ faa am comprendre nga wax dëgg yàlla di ñaan yàlla nag xam nga xëy na lépp dina baax gars yi nañ gën a jàpp rek ñu si amul combat ñëpp yàlla may leen combat yàlla may leen ndam. billaahi. jërëjëf dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax moom Agogo woo na autorité bépp képp koo xamante ne autorité nga nga nekk fii moom lay woo nga ñëw jàppale ko ci combat bi parce que combat grand combat lay bëre te grand combat yaafus du ko bëre naan moo koy bëre te it ku ñu dab ne la le 4 janvier yaay bëre grand combat fële ci stade Iba Mar Diop promoteur bi ci dugal xaalisam bëgg na mobilisation bu rëy dégg naa kii mooy sa Malick Gakou noo tudd. Ousseynou. Ousseynou yaay Malick Gakou Agogo. waaw ah. ñaata nga koy préparer ci combat bi. Hmm, ñaata nga koy may. da koy may tiset wala mayo wala xaalis. xaalis ñaata million. deux cent millions. deux cent eh, ah. waaw damay woo Kéba di woo Demba bu xarañ loo. parce que ñooñu danoo yàgg. Hmm. wax dëgg yàlla dañoo war a jàpp sunuy komba ndax Babou Xarañ Lo yow Kéba Kanté da ngeen war a jàpp suñuy combat loolu rek laa am pour wax si yéen mm. euh, kii nuñ koy waxatee sax mm. nuñ koy waxatee sax kii nuñ koy waxatee sax maam booy Diaw. maam Boy da may dimbali rek moo wax ak moom. Mm-hmm. su may waxak moom. Mm. dama ko olof. parce que dañoo bokk fu ñu jógee. booy Boy Diaw. commune bi dafa la dul lépp dara ni ne maa jibinande fuladu jibinande fuladu kolɗa koliɗaɗo moussa moolo dorna moussa moolo wurdu am ɗum ubba ma enen gewdi dula goto enen koddi dula goto so tawi mi leɓananimo jolfe mino faala ganda homo lebdatenen e ma ɓe nanganta e affaire sippire ɗo dakar ɗo min ɓuuri ɗumen hen ma mino faala kala nanɗo nantinama mambo diawo min noddimo mino faala jiiɗen mino faala combat o nanga hen mamboy diawo encore une fois du ma la boole kenn damay wax ak yow comme ni ma ko waxee ci pulaar danoo bokk fi ñu jógee bokk Kolda Koli Daado Mamboy Diaw samay combat képp koo jàppale fii ci di mbër wala mu yëngu si leneen fii si Ndakaaru maa ci gën a yey mm. man ak moom danoo bokk fu ñu fa ñu suul jumbaxam fa lañ suul sama jumbax mu baal ma àq na ci waxin gi mais képp ku ma jàppale si réew maa ci gën a yey maam booy jaawo loolu yow laa koy wax yàlla baax na xëy na nag waaw boobu ba léegi nag maa ngi def ay jéego mais dafa am ñoo xamante ne nii wax dëgg yàlla xëy na ba léegi nag sama message léeg-léeg waaru yaa ma gën a xam. day seetaan wasaare lamb. message bi yegg na. maam booy jaaw moom yàlla xam na ne dara doyuma si man lu dul ñu toog parce que moom am na loo xamante ni nii munu koo xam ndax duma ko wax fii mais dama ko xam te xam naa ne moom ku xam la xam xam samay kilifa. message bi yegg na maam booy jaaw dina la woo di nga ko gis balaa combat bi te dina jàpp ci komba bi. waaw jàppale ko sa doom la sa rakk la sa lépp la te ku la woo rek ci bisam. bëgg na nga jàppale ko wolof daf ne ku la fees loo moo la yàpp loo kon mbokk yi noonu laa leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci wasaare làmb ay ca yëngalaat leen ma xool. le kaara ceele duñ ko may salaamaaleykum ar moom yaa palanteer yuuxu leen bëggu yow yaay suñu gaynde loo xas ba bëgg kenn du si teglo moom buur la woon daan na ko fit la am ndaam lii la ñu bëgg roi bi la ñu la ñu yoole woy yaay Samba woy yaay Samba woy yaay Samba woy yaay may jomala ko may jomala ko may jomala ko may jomala ko may sama nu may gang gang gang gang gang gang